wajalilaayi maskani Tuubaa baat misrak mi abijaayi xayri man abaat wajalilaayi maskani Tuubaa baat misrak mi abijaayi xayri man abaat wasalli alayhi afdal salaam. bismillaahi rahmaani rahiim. alhamdulillaahi rabbil aalamiin. wasalaatu wasalaamu. ala man buisa walam yubas ila rahmatan lil alamin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahabatihi wawi ridwan wa tamkin wawi ridwan wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi leen di nuyu mbokki jullit yi ci seen barab bi nga xam ni mooy RTT seen mbokk Moustapha seen ñëwoon doon fi ànd ak yéen ci wàccaayu màggal gi di fi indi lenn rekk ci laabire goo xam ni dañ koy ànd di ko laabirante ci njàngaleem Sayxul Xadim ñu tënk ko rek kawnuhu maslakan li subul itibaa'i wa matrakan li subul ibtidaa nekkuk sëriñ bi doon sóobuwaay boo xam ni dañ ci sóoboo mën a topp alkitaabu wa sunna muy alxuraan ak sunna yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye sóobu googu doon sóobu goo xam ne buñ ci sóoboo dañuy jural ñu génn ci bépp bidaa bidaa mooy loo xam ni duñu amal njariñ tey du ñu amal njariñ ëllëg sunu benn baay bu baax da daan wax ni sunna mbaa sonn soo nekkul ci sunna dangay def effort yu bari te doo gañe dara boo nekkee ci sunna yonent bi nag sallallahu alayhi wa loo yëngatu rek am pay gu baree bare bari foofu lañu ñu sëñ bi woo kon mën nañ ni wooteem boobu woote boo xam ni dañuy jële ci mbir di ñu yóbbu ci mbir mu ko gën a kawe gën koo baax gën koo mel ni lu gën a néewi coono waaye gën a bari résultat te loolu mbokk yi ci njàngale rek la ko sëñ bi réussir woon ba mag ñépp kenn ku nekk am loo dootul jeex xam ngeen ni bala ma cee dugg buñ ñee sëriñ mooy koo xam ne mooy professeur boo xam ne nii dafa am diplôme yoo xam ne mën naa tàggat nit jële ci moom dara def ci moom lu ko gën kooku mooy professeur kon sëriñ professeur la war a doon doon la sëñ Tubaa jàngal taalibe yi ñoom ñooy élèves yi école yi nga xam ne ñu ngi leen di gis fii ci réew mi école boo xam ne seeni professeur dafa baax programme ba baax dañuy mujj di ko tuddee école d'excellence la ñuy mujj wax ngir donga yu baax yu fay jóge yoo xam ne dañuy raw seen moroom gën leen a baax lu ñuy occupé ci àdduna ak taxawaay sëriñ bi nag noonu la mel ci biir jàngaleem moomu nga xam ne mu ngi ko donnoo woon ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy wut daara yoo xam ne nii ña fay nekk dañuy jàng ngën gi jàng moom la ñuy wax al ilmu naafiq xam-xam boo xam ne dalay jariñ rek duñu jàng mukk loo xam ne nii boo paree danga koy ub rek doo ci mën a jariñu doo ci mën a jariñ kenn loolu bokkul woon ci njàngaleem Seyxul Xadim ñi ko xam yépp xam nañ ni bu masaan noppi ci waay wala mu ni ces waay téye la mag ñu doon wax gaadarana min arriyaahi ila al ixlaas dalay génne ci ngistal bu la ca fekkee ndax nit ñi bokkuñu kenn ku nekk feebaram dafa wuute docteur day xëy recevoir benn professeur boo xam ne ci médecine lay liggéey day xëy recevoir ñu baree bari ñoo xam ne seeni jàngoro dafa wuute kenn ku nekk mu seet la ca la nga yellool bindal la ordonnance ya nga yellool wax la na nga koy jëfee bu la war a loo benn façon repas boo xam ne baaxul ci sa yaram mu tere la ko bokkut ak la muy terekee ak la muy terekee bu la fekkee nga nga nga doon koo xam ne da ngaa bëgg wanewu maanaam dooy def rek dañ koy gis walla doo def bëgg maa fi nekk lépp di sal ci tënk da lay cay génne jëme la fan ilal ixlaas day fexe ba dootoo tal ngistal mu jëmale la ci sellal say jëf looy jëf rek dangay bëgg sa borom rek nga koy seedeel dinga ci yegg sax boo demoon ba ca digg mbooloo ma di jëf doo gis mbooloo mi waaye yow yàlla mi tax ngay jëf rek moom ngay gis loolu ci xam ilmu nafsi la ko jële moom Seyxul Xadim dafa xam feebaru nit ñi ñaareel ba mbokk yi mooy dalay jële wa minal jaxli ilal ulum dafay fekk ñoo xam ne nii dañoo réere woon seen bopp sax réere seen boroom réere li leen wër al aqal te dañ ni nit ki li gën a néew ci xam-xam mu soxla ko lu mu néew néew lu mu ñàkk-ñàkk xam war naa xam moom fi muy dund hmm, ak lan moo fa nekk ku ñàkk-ñàkk xam-xam moom lu mu néew néew war ngaa xam fi ngay dunde sa environnement ak lan moo fa nekk ci njariñ ak yan ngay wattandiku pour lor loolu la daan def ci nit dalay jële ci réer yóbbu la ci xam sa bopp xam sa borom xam sa diine nangu ko sàmm mu gënal la lépp su fa jógee yóbbu la ci jëfe la nga xam ñetti étape la da yóbbu ci xam soo xamee ba noppi fekk jëlee na la ci réer mu bëgg loola jëfe li ngay li nga xam te loolu mooy tatbiix te ku jëfe li nga xam sunu borom xamal la loo xamul woon taqullaha wa yuallimukumullah ragal leen yàlla ci li ngeen xam mu xamal leen xam-xam boo xam ni xamu leen ko woon ci ndimbalam mooy ilmu ladin laduni fa wajada abdan aataynaahu rahmatan min indinaa wala wa alam naa min la dunaa ilman parce que ca diggante sayduna Muusa ak xudar xudar dafa ragaloon boroomam ci li xam yàlla xamal ko lu bari lu ëpp li mu xamoon xam-xam boobu sëriñ bi da cee xiroon ay gaayam ba ñoom ñëpp ñu fees del waaye ñetteel ba mbokk yi wa min al xaflati ila dawaami zikri mu jële ñu ci sàggan sàggane say waxtu foo toll yaa ngi waxtaan doo liggéey lu lay may alal doo jaamu yàlla lu lay wut loo ngërëmu sunu borom te nit ñaari temps yii la am luy defar àddunaam ak luy defar alaaxira ci lañu war a jeexal temps yépp waaye waxtaan naan ataaya daan kafe seetaani fubbal seetaani làmb <laughs> Ah, bari na ñu ca nekk ba nga xam ne seen lu bari dañ leen koy lijjanti seen waxtu yu bari tamit dinañ ko ñàkk fonk ci jëm ci seen borom ba du ñu julli waxtu ci juróom ngir sànq sa temps ci sàggan bi mu ñu jëlee ci sàggan dañoo yóbbu ci saxoo tudd sunu borom saxoo tudd sunu borom yaa ayyuha allazina amanu zkurullaha zikran kasira wa sabbihuuhu bukratan wa asila yéen ñi gëm na ngeen di tudd yàlla sunu boroom lu bare bare bare bare bare te ngeen koy sàbbal bu leen xëyee ci fajar yi nangeen koy sàbbal bu ngoonee ci waxtu géey diggante timis ba guddi gi di dugg na ngeen di sàbbal sunu boroom lu bare bare bare kon bokk na ci ñàkk sàggan mbokk yi di tudd yàlla lu bare bare bare sëñ bi nee na woon ama dawaamu zikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana muridun yuksiru xat xultu zalika bila kufraani wala ubaali bi zawil inkaari bila kufraani wala ubaali bi zawil inkaari nee na taalibe bu bëgg boroomam mooy mu saxoo ci làmmiñam di tudd sunu borom waaw bu làmmiñ ñu noppul mukk nañ koy tudd layla nahaara nañ koy tudd ci guddi yi ak ci bëccëg yi nañ koy tudd bu neexee ak bu naqaree alxuraan dem na sax ba ni na di fàttaliku yàlla sunu borom ni ngeen di fàttalikoo seeni ñaari wayjur ndax amul kenn kuy fàtte ay wayjuram awa sadda sikran sax la ca teg wala lu raw sax li ngeen di fàttalikoo seen ñaari way jur noonu la tarbiyaa woon mag ñi ci université d'excellence yu mag yooyu mu taxawaloon ci kaw suuf jële leen ci sàggan yóbbu leen ci nangoo tudd sunu borom lu bari mbokk yi waaye mu defaat beneen mbir mooy wa min al xirsi ila xasril amal mu génne ñu génnewu mag ñi génnewaale ñu ci xër ci àdduna waaw loo romb rek bëgg nga ca loolu loolu sëñ bi daawu ko yare nit loo romb rek soo rombee nit mu col ak col bala ngaa am jàmm da am col googu soo rombee nit mu dawal ab oto bala ngaa am jàmm donte am nga oto bu baax da ngay dawal oto boobu sa bët ci loolu lay tegu soo rombee nit mu tax tabax air plus nangam nga xeet bâtiment bu baax bi nga amoon ni faw nga tabax lool bu yàggee dootoo bàyyi xel sa borom mu daal ñuy jële ci xër ni ñu gàttal leen seen mébét su leen fi amee fu leen lu leen mën a tedde na ngeen sàmm teraanga jooju bu leen topp àdduna di tabax rek déedéet bu leen topp àdduna ci yemale ko ci jëndu ay voiture rek déedéet na ngeen jënd loo xam ne nii man ngeen cee dox seen soxla bu naree ràpp ngeen soppi ko rek waaye bu leen ko soppi ngir am ak xër ci àdduna bu mu leen yóbbaale na ngeen gàttal seeni mébét ndax mbër moomu nga xam ne nii mooy sunu borom buy soxla ab jaam da koy bett al mawtu yati baxtatan sunu borom buy jël ruuxu nit da koy bett da koy fekk mu nekk ci projet yu bari sëñ bi di bañ ku ñu bett te kuy fàttaliku yàlla lu bari di yemale say bëgg-bëgg di dimbalee di bàyyi xel buur boobu bis boobu du la bett mukk waxuma la du la bett waaye dangay dund ci liberté mbokk yi da ngay nekk ci jàmm da ti ci nekk ci jàmm waaw looy def dangay xam ne nii farata la ci sa bakkan ci say besoin nga dem defi ko nga xam ne lii day sa farata fii ñu toll waaye doo ko def ngir diw am na ko walla diw def na ko te diw sama nawle la <laughs> déedéet ñoom duñu ñu mel noonu waxab la naal xirsa ala taati wa kufanal ka salla fil awxaati noonu la waxoon ci mallabul sifa yow sunu boroom na nga nu may ñu xër ci di la topp na nu xër ci naafile yu bari nañu xër ci tuub nañu xër ci saraxe nañu xër ci téye sunu làmmiñ ci lépp lu ñu xamul loolu mooy jàngale nañu xër ci jàng alxuraan nañu xër ci nangoo suufe suufeelu xër boobu moo baax yàlla nañ ko yàlla defal waaye wa kufanal ka salla aw awxaati yow sunu borom yàlla na nu fegal tàyyeel ci sunuy waxtu waaw yenn saa yi mbokk yi nga gis ku reer ci jamonoy tàngaay dem lal ca mbedd ma wala ca balcon ba teg ataayaam di ataaya bu ko boolee woon ak kurusam sax di julli ci yonanti bi mu baax waaye mën na fa nekk di jëri ak xel pour naan ñett ñaari baraada mu nekk ci loolu ba une maa ngi fàttaliku mas naa duggandoog ci li ma xamee ne tubaab yi nga xam ne àdduna rek moo leen yitteel seen farlu dafa dépassé loolu man maa ko dund ma dugg ci benn euh, bato jëm Casamance maa ngi gis sénégalais yi boobu benn tubaab mi ngi dend ak ñun sénégalais yi ñu ngi ci bato bi dafay am ay ay salon yépp day am ay télé sénégalais yi ñu ngi ci jàpp ay théâtre ci bala bato bi ñee di jàpp ay film ci lañ fanaan jàkkaarloog loolu ba bët set ba bato bi di daw ba suba la àgg la waxtu ay 10 heures la àgg Casamance. maa ngi dend ak benn tubaab boo xam ne mu ngi ci ordinateur am rek di liggéey di liggéey ba fajar mu ëpp ordinateur am daal di wéeru tuuti ñun ñu nekk ci film yi rek loolu mooy koo xam ne nii amul ambition day yàq waxtoom waxtoom da koy maye da koy maye te diggante bi nit ki reeree muy 22 heures ba une heure matin wala ba deux heures muy doog a tëdd nangami junni salaatu ala nabi xaj na fa te du boole du yàq. mu naan ataayam naan kafeem hmm? waxtu wu nit ki di seetaan télé junni nàngam ci salaatu ala nabi wala astaghfirullah xaj na fa te yaa ngi jàkkaarloog sa télé sëriñ bi loolu la bëggoon bañ a sàggat ci say waxtu ak bañ a tàyyeel ci luy tabax sa àdduna ak sa alaaxira ñu bañ cee tàyyeel waaye mbokk yi wa min al kibri ila tawaadui mu jële ñu ci jële googu mu jële woon mag ñi mu doon tarbiya ci la ñu jëlewaale ci rëy rëy gaaw a gis sa bopp du jikkoy nit ku baax koo xam ne nii suñ la xusee nga mer gaaw a gedd <laughs> gaaw a xuloo waaw lu nekk rek mën naa tax nga dogoog nit loolu da cee tarbiya woon mag ñi ba ñu jóge ci moo tax ñu taxawal lu yooyu ñu taxawaloon mu jëme leen fan ci nangoo suufe suufelu nangoo des nangoo xam ni yow kenn nga rek ci nit ñi yow ak ñëpp a yem gënoo kenn nangoo xam ni pour nga am njariñ mooy da ngay nit ñi di jaxasook ñoom di leen jariñ ñu lay jariñ nangoo wàcce sa bopp nangoo teg sa bopp tuuma bu mbir ñëwee nga ni lii de bu yàqoo yaakaar naa ni sama défaut doon nga xam ni doo tànn ni yow yaa nekk tiim ñépp ñépp a ngi ci sa suuf loolu bu masaan pare ci nit nit ki du yor melokaan yooyu waaye mbokk yi bokk na ci wa wa min al ujbi ila zulli wa taxaaduro da daan defar nit moom Seyxul Xadim ba mu jógee ci naw sa bopp naw sa bopp am na sama classe gi am na ñoo xam ne dañoo naw seen bopp lool pour ñoom rek lu ñu def baax na lu ñu xalaat rek loolu la da gis ko yoo xam ne day damoo sixième sens laa sax lu ma xalaat loolu la dama am gis-gis dama déedéet <laughs> déedéet sixième sens taxut a régler mbir yi euh, ndeysaat kon dafa génne woon ci mag ñi gis sa bopp naw sa bopp naw say jëf defe ni loo dugalul sa loxo du sotti lu ñu la laajul xalaat du baax am na ñu jàpp noonu waaw ah. luñ la yégalul nga bëgg mu doon loo xam ne day échec naw sa bopp ba àgg foofu nan la ko wuutee mu def ñu ñoo xam ne dañoo nangoo mokk mokklu su mbir yàqoo sax nga ni sëñ bi de boo moytuwul loolu de sama defalo maa ngi ciy jéggalu de waaw ah, man de maa la waroon na njëkk sax consulter laaj la ba xam waaw ah, wàcce sa bopp lu am rek nga defee ni yow sa sikk wala sag doye di moo ko waral loolu defoon ci mag ñu baax ñi waaye mbokk yi wa min xubbi dunya wa min xubbi dunya ilaal xubbi fillah aw ila xubbil daaril aaxira mu jële nit ñi ci bëgg àdduna jébbal ko sa lépp bëgg leen yàlla ak kër gu mujj ga ak am solo day tax day tax a féex waaw waxuma ko waxinu doo bëgg fu baax foo nekk ci àdduna doo bëgg ñu baax ñoo nekkal doo déedéet waaye dangay am àdduna ba mu jeex ci say loxo loolu la bëgg ba pare nga bañ a jébbal sa bopp àdduna waaw ku la gis xam ni liggéey nga ba ñàkkoo ku la gis xam ni li nga am ci àdduna doxul sa digganteeg sa borom loolu mooy ñàkk bëgg àdduna loolu mooy ñàkk bëgg àdduna foofu la ndax ku mu mas a defar mbokk yi digal na la nga sañc ab dëkk ku lay sanc loo dëkk ràpp loo doo defu la pour ngay ràppal suuf dañu la tabaxal suuf boo tabax boo sancee ab dëkk mu ni la fexeel ba jumaa nekk fa defar fa daaray alxuraan defar fa daara yu ñuy tarbiya nga defar ay nit kooku waxu la nga ràppal àdduna waaye loolu lépp boo ko defee ba pare nga boole ko moo des bul yenu àdduna nag bul yenu àdduna bi mu la jëlee foofu mbokk yi wa min xubbi rifati ila tarbi ila tarbiyati nufuus mu jëlee ñu moom sayxul xaddim ci bañ loo nu yëkkatiku yëkkatiku boo duggee ci mbooloo barki dem maa ngi koy wax ci benn waxtaan soo duggee ci mbooloo bu nit ñi jógul sax gaaw accueillir la nga defeen dañ laa xeeb <laughs> waaw bëgg yëkkatiku bëgg yëkkatiku rek yow daal mbooloo moo dugg na nga fa dàq te loolu war nañ koo bàyyi am na ñoo xam ne bu ñuy duggee ci mbooloo yi sax fekk ñiy jàng alxuraan du ñu summi seen dàll yi sax duñ ko summi sax te alxuraan moo gën a rëy ci kaw suuf ngir lan bëgg yëkkati ko rek kon dafa tere woon mag ñépp tarbiya leen tarbiya boo xam ne da leen a génn ci bëgg yëkkatiku yóbbu leen hmm? ci tarbiyatu nufuus mu defar leen ba nga xam ne ni dañoo yar seen bakkat yonent bi bi saxaaba yi jógee ci xeex bu mag boobu ba ñëw ba del si Medinatul Munawwara mu leen di gaaral taxawaay yu am solo ya ñu def da leen caa xamal ni leen jóge nañ ci ji jihaad ji gën a ndaw léegi nag ñu ngi jëm ci gët ji gën a mag ñu naan ko le grand at ñu ci des ni la le jihaad de l'âme grand jihaad mooy ji at ji nga xam ne ci ngay defaree sa bopp ndax léegi ki ngay xeexal dootul kooy koo xam ne boo ko boo ko coree jaasi dootoo ko gis ki ngay xeexal mooy sa bakkanu bopp te mënoo koo cor jaasi boo tëddee mu tëdd fi sa wet boo jógee mu jóg soo ko daanelee mu jóg taxaw di la xaaraat bala ngaa jógaat kooku ngay xeexal léegi kon kooku mooy xeex bu mag bi waaye mbokk yi kooku ku ko defar defar nga lépp ku ko boyal boyal nga lépp ku ko boyal mi ngi mel ni koo xam ni yar na gaynde ci kër ci këram ba mu mat mu xiifal ko ñëw jébbal ko boppam mu fàdd ko noonu la bakkan mel a nafsu ka tifli in tuxmilu saba ubbi radain wa in taftimhu yan fatim loolu la seyduna muhammadul busayri wax bakkan dafa mel ni liir bi nga xam ni yaa ko juddulu soo ko ferelee mu fer <laughs> suy nàmp ba am un an et demi wala deux ans nga daal ni ah ni ko gars yi di defee rek fii jënd sa mburu def ca say aayaat jox ko ni ko bis tey nag waaw na fi yem xale ba tuuti rek lay bañ daa daal di far adopte wu nangu waaye soo ko bàyyee muy nàmp di dem mën naa am juróom-ñaari at nekk di nàmp boo ko bàyyee moom xale boobu kon noonu la bakkan mel ci misaal nit mën na koo bàyyi mu màggat ak moom yor jikko ju bon joo xam ne nii xale buy doog a jóg sax amul lool wala mën na koo sib moo tax mu xiiroon mag ñi ci defar bakkan moo doon sànce bi gën a rëy waaye mbokk yi wa min kasratil xultati bi xayri nafi ilal muraqabati wal awil musahada dafa daan éloigneloo nit ñi daleen daan soriloo jaxasoo gu bari gu amul njariñ di leen xiir ci wéttilikoo sunu borom di leen xiir ci fuglanteeg sunu borom loolu la leen daan xiir sëriñ bi Buso nee nañu dafa doon tarbiya ñaari dongo benn bis eh, mu woo leen jox leen digal ni leen yow demal féete fële ci kër gi ki ci des demal féete fee bu ngoonee na ngeen mooy wuy si ma na ngeen fexe ba seeni wax néew ba ñu jullee timis wala gee ba pare mu woo leen ni leen tey diw yow lan nga fi wax mu ni xanaa diw de nee na ma salaamaaleykum ma ne maaleykum salaam mu ne ma ana sëñ bi ma ne ko sëñ bi dafa jàpp ka ca des mu ne ko yow nag loo fi wax mu ne ko man de diw ñëw na fi laaj ma ma ne ko loolu nga ma laaj xaw ma ci dara mu ne ko wax ji néew na waaye bu ëllëgee na gën a néew sëñ Saaliw Mbàkke da daan wax ni mbokk yi wax ba ñu yéemu ci say wax nga noppi ba ñu yéemu ci sag noppi moo ko gën kon wax ci lu am njariñ rek la war a doon mbokk yi wax ci lu am njariñ rek moo tax yaa ngi gis ñoo xam ne nii ci wax rek lu amul njariñ dañ leen ciy fay salaire yu am solo fii ci réew day <laughs> ndeysaan waaw wax lu amul solo diw nàngam hmm? di répéter ay woot di teg yi di di ko baamu di ca wax yu ñàkk solo ñu leen ciy fay loo xam ne nii nit bu góor góorlu woon ba mokkal alxuraan bind ko def mbind ma gën a rafet gën a wér xalaatu am lool waaye nag noonu la mbokk yi mu bokk ci njàngale mi mu ñu gën a jàngal nag wa alamana bi mudi zaman wa sayriha wa afatiha wa summiha mu daaju ñuy xamal moom sayxul xadim ni jamono dafay daw dafay wéy ku defee ni yow yaa ngi fii demoon mi ngi dem di la yóbbaale ku defee ni da nga sax rek da ngay nax sa bopp mbokk yi bu ñu amoon benn directeur ci benn barab muy jël conseil sax balaa dem conseil dañuy seet ku ko remplacer jamono du taxaw fan la yastaxlifannahum fil ardi kama staxlafa lasina min qablihim loolu la alxuraan wax dama leen di dama leen di def ngeen di am ay relève ndax loolu laa defoon ci seen maam yu jëkk ya ngeen wut ngeen di ñëw ba agsi seen bàyyi ya ñëw ba ngeen ñëw yéen dangeen ngeen fiy jóge ñeneen ñëw soo amoon koo xam ne nii sëb surga la sax wala nga am mbindaat li gën a néew sax mu war a am benn weer woo xam ne da koy am conseil sax bala moo dem nga lijjanti ku ko wutu jamono du taxaw ndax kër gi faaw ñu sax di ko fa faw faaw ñu sax di togg añ soo amee ku am congé congé boobu dinañ ko wuutu ku retraité dañ lay wutu ku faatu fa nga nekkoon dañ lay wutu mbokk yi moo tax sëñ bi jàngaloon loon nit ñi importance su jamono ak gaawam la gaawal def fi lu baax ndax jamono du fi nekk ak yow rek danga nga fee wuutu aw nit yow dañ la fiy wuutu amaa xarit amaa xarit dañ la fiy wut waaye mu xamal gaawaayu doxu jamono mu jàngal ñu ko jàngal ñu ko mu xamal ñu ni tuddi ku ka yow man wa tub kii ka xadan tasuru taw taw wa tasu sarmada jamono moo lay reetaan la tey jii bu ëllëgee mu jooy loola jooy yu metti <laughs> yenn saa yi nga gis nit ci benn situation boo xam ne nii danga naan kii mënatul a nekk ci jafe-jafe mukk dinay dal sunu nitu nguur yi lu bare bare bare bare bu ñu fii doon élire nit di ko jox benn ministère ay géwélu juddam ñëw ay mbokkam ñëw tëgg ma jolli lu nekk ñu koy taggal sa liggéeyum ndey sa nangam sa nangam waaye kooku mën naa dem ay jamono tuuti mbokk yi ñu koy yóbbul añ ca prison yi jamono ngoog Sëñ Tuubaa moo ñu ko doon jàngal daf lay reetaanloo tey ba nga bég bu subaa mu jooyloo la yenn saa yi mu bégloo la ba nga bég nekkate mbég moomu dalay jural aw naqar woo xam ne nii ca kanam tuuti boo xamoon mbég moomu doo bu dikkee da ngay jooy waaye mu xamal ñu jamono dafa am gaaf goo xam ne ku ci nekk war nga cee mbañ a jéem a taq jamono dafa am gaaf dafa am gaaf ñun bu ñu soloo ba jekk mbokk yi dañuy wattandiku bépp poto poto ay taq-taq dañ koy wattandiku ndax dañoo solo dañuy wattandiku ku ñu ku taasal sunu yére ku ku ku wengal suñuy mbaxana mbaxana yi sax dañ koy defar ba ku ko laal nga xam ne yàq na sa sol dañuy xool fa ñuy toog jamono ci boppam nag moo gën a taq loolu ndax loolu ay yére la jamono moo mën a taqal sa jëmm taqin woo xam ne dootul set wala du yomb dootul yomb moo la mën a wonal moo la maanaam mel ni daf lay bégal tey yóbbale woy wu ñaaw woo xam ne ba ci say sëtaat buñ ko waxee ñu làqatu ji kooku mooy jamono mu jàngal ko mag ñi ba ñu xam ko xam fu ñuy tàmbalee ak fu ñuy yem waaye wa manaana bi tibaayil hawa mu teg ca nag tere ñu topp bànneex bànneex boroom xam-xam ba dañu inna la hawa la huwa alhawaani bi nafsi wa saariu kulli hawan saarihu hawaan na nga xam ni topp bànneex mooy topp ak doyadi bànneex mooy doyadi <laughs> waaw saa su ko nit dee wut fu mu ko wurta wut mooy sol na mbubbum doyadi moo xam ne nii ba keroog muy sottal ci lay nekk topp bànneex mooy topp doyadi mbokk yi <laughs> waaw wa saarihu kulli awan saarihu awaani képp koo xam ne nërmeel nga sa bànneexu bakkan daaneel nga ak doyadi dootoo doyadi mukk dootoo ñàkk fayda mukk bari na koo xam ne dañ koy tudde borom daraja boroom cër ñu ni moo takk ndomba nàngam lenn rek mooy jàngoroom mooy topp bànneex moom lañ naan tabibun yu daawi u naasa wa marit docteur boo xam ne foo ko fekk mi ngi woote di ndey faj te moo gën a feebar yépp li koy wane mooy topp bànneex ku tedd ki doon na wax ni ruumu jihaadu nafsi ya ixwaani fa lakkumu xadan bihil jinaan yéen samay mbokk na ngeen fexe tàggat xeex leen ak seen bakkan tere leen bakkan bi ni ko bul màmm màmm ni ni fas di màmmee yàq lu bari bakkan bu màmmee moo ko gën a mën a yàq ndax bakkan ak yàqam fas mën naa yàq loo xam ne dañ koy réparer waaye yàqu bakkan yóbbu te réparer mbokk yi kon xeex leen ak moom yamale leen ko palaasam nee leen ko nay yem ci ay bornoom ay limitam na ca nangoo yem hmm? bu saa suñu tàggatee bakkan ba mu yem ci ay limitam ca la ko sunu borom di ubbile kiruk àjjanam waaye fa may tëje mooy fa amarana bi tamasuk bil iman bi tawxid mu digal na ñun ñépp nag nañu fexe wóolu yàlla gën ko cig wéetal al imaanu bi tawxid yonente bi sunu borom nee na ko woon la in asrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna min al xaasirin leen rek laa lay dénk yow sallallahu alayhi wa bul jël sama cër mukk di ci boole keneen bu ko def mukk soo ko defee loo ma sa jëf day yàqu te bu boobaa musiba dal la waaye mbokk yi sëriñ bi digal ñu ñu dolli ca al islaamu bi tafaxu maanaam ñu nangoo wommatu suñu borom waaye xam nan lañuy womatoo fas yéene xam nu ñuy jaamoo suñu borom jaamu ga lan lañ ci digal ci rafetal ko bu yàqoo nan lañ ko lu ca lu ca dëng nan lañ ko war a jange nan lañ ko war a réparer te it wahiya sariatu ba badi it waxaayaati te loolu mooy sax ci saria fiq mooy saria ci tàmbali doo génn saria looy tëj tamit ci saria nga koy tëj doo ci génn mukk mbokk yi sunu borom digaluñu lu ñu a baax loolu koo ko wax mu ni la mu bëgg ni déedéet waaye lu yàlla digal nit rek mën na koo ba digal yi lu mu teree nit loolu laa bëgg a wax astaxfurlaa lu mu teree nit day fekk mën nga koo ba waaye digal yi nag mënoo jëf yépp digal yi dafa bari danga ciy seet li nga àttan nga def ko waaye tere yi moom loo dégg ni yàlla tere na ko rek bàyyi waaw ndax musiba ca nekk digal yi nag defal la nga mën kem sa kattan waaye ba ko ñeenteel mbokk yi mooy al ixsaanu bi tasawuf mu rafet loonu mu mu nu nañu rafetal sunu jaamu yàlla ci sunu digganteek moom ak suñu jaamu yàlla gi nga xam ne moom lañuy ñuy jëflante ci suñu diggante ndax jëflante ci jaamu yàlla la bokk jëflante bu rafet ñu def soo ci tasawuf te mooy an taxbudallaha ka annaka tara in lam takun tara fa innahu yarak in lam takun taraahu innahu yarak mooy ngay jaamu yàlla ba mel ni sunu borom ma nga lay gis soo ko gisul nga gëm ni ba mel ni sax yaa ngi gis suñu borom soo ko munta àgg ci degré boobu nga gëm ni yàlla mu ngi lay gis foo mën a nekk sooy jaay nit ki nga jaay ko njaay mu baax xam ni sunu borom mi ngi assisté seen njaay mi yow gisoo ko waaye mi ngi taxaw di xool li nga koy jaay ba xam baax na ndax waxoo ko ci biir njaay mi loo xam ne nekkul ci njaay mi waxoo ko ndax yaa ngi ko naan nangam nga ko jënde ndax nangam nga ko jënde te jaru ko woon sax wax ko prix boo xam ne rek abordable na bu ko jox rendez-vous boo wër boo na boo xam ni façon yóori na dajeeg moom bu ko def bul wor yonent bi nee na woon man xas sa naa fa laysa minna ñi ñuy wor wala ñuy ñuy ñuy ñu ñuy ger ñooñu bokk ñu ci ñun ku bokk ci communauté bi da ngay bëgg ci sa bopp li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko sa morom kon loolu mbokk yi boo ko tënkee lépp mooy al ilmu naafiq yajlubu yajlubaani yajlubaa ila al amali saalix yajlub yajlubu naa ila al amali saalix yajlubu naa ila amali saalix xam-xam bu boobu ji jariñe moo ñuy yóbbu ba ñuy jëf-jëf yu baax boo amee xam-xam buy jariñe da lay xiir di la xëcc di la jëme ci jëf ju baax jëf ju baax nag mbokk yi ñett rek la mooy al ibadatu lillah kon mbokk yi foofu lañuy ñuy daaneele kàddu yi di nuyu tey sant waa RTT ñu àndoon barkeelu ci wàccaayu màggal gi di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla ñun ñëpp ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm ñu jële ci dégg goo xam ne nii danañ génn ci mbooleem loo xam ne nii day sànq sunu dund te jëm ci mboolem loo xam ne nii dana defar sunu tey ak sunu ëllëg wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wajalilaayi maskanitu baabaat mislak mi abijaayi xayri manabaat wajalilaayi maskanitu baabaat مثل اسمها بجاه خير من نبات وسليا عليها أبدل الصلاة